والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd wi tey jii nu am yéene leeral ci dërsub ñaareel bi wala ñetteel bi ñaari tur yi muy arrahman arrahim ginnaaw bu ñu leeralee allah démb wala bëkk démb arrahmaani rahim di ñaari tur yoo xam ni ni ko imaam Xasali waxee mi ngi jóge ci arrahma ci yërmande lañ ko jële mu bokk ci sifaatul jamaal yi sunu boroom dafa am sifaatul jalaal am it sifaatul jamaal arrahmaani rahim bokk ci sifaatul jamaal yi waaye nag bokk it ci sifaatul kamaal yi yërmande kon ci sifaatul sifaatul jamaal la sifaatul kamaal la ñeel sunu borom tabaraka wa taala dëgganul ci benn jullitit muy dàq melo woowu muy melo yërmaande ci yàlla ci benn anam ci anam yi moo xam ci jamono yu mbégte la wala jamono yu naqar moo xam day neex wala day naqari wala day bég wala day mer waaye kenn suñu ko dàq ku dàq melo yërmande woo ci yàlla ci sababu ay nattu yum la teg na nga xam ni weddi nga sunu boroom ci turam yooyu te sunu boroom tëgku ne ñi nga xamante ni dañuy weddi dañuy weddi melo yu turam yooyu di wax ne inna alladina yulhiduuna fi asmaihi sa yujzawna ma kaanu yaamaluun ñi nga xam dañuy ilhaad weddi ci tur yàlla yi weddi ci melow tur yàlla yi wala jikko yi tur yi war a jikkoo dañu leen fay lañu daan jëf weddi googu nag nit def ci mën a dugg te du yëg ni dugg na ci ndax saa bu tartar amee moo xam ci sa jëmmi bopp la wala suñu borom teg ko nit nga jàpp ne tartar boobu ñàkk yërmande la ak noo ko jàppee rek yaa ngi dugg ci kaadaru ilhaad fi asmaillah ndax li nit ki dul xam ba tax bu gisee nattu bu suñu borom teg nit mu jàpp ni ñàkk yërmande la dafa xamul ni nattu boobu ci jëmmi boppam yërmande la nattu bi suñu borom teg nit ki ci jëmmi boppam yërmande lay teg ndax yërmande li mu laaj ci bu fekkee da ngaa am yërmande ci jëmm mooy lépp luy aw yiw nga jéem ko koo xëccal lépp luy lor nga jañal ko ak doonte yiw woowee xëcc gi nga koy xëcc day metti ci moom wala lor da nga koy jañal jañ nga dina metti ci moom sax teewul da nga koy teg loolu ñi ngi ko mën a misaale mooy nit ki doomu mën naa wéradi mu dem ci hôpital bi gis docteur boo xam ni dafa def taxasus ci fànn googu yi mu xool ba ni kii faw dañ koy opéré mu door mën a wér ku am yërmande ju ànduta ku xam day jàpp ni loolu ëpp naa def waaye ka am yërmande ta xam day xam ne lay yërmande yi mooy lii ñuy def nii mooy lu metti lii muy xotti xotti googu ñu koy wàññi def moo tax suñu borom di teg nit ki ab nattu te fekk ne natt boobu njëriñul kese la yërmaande kese moo tax mu di ko teg kon nit ki boo amee yërmaande ci nit lépp luy aw yiwam dana ko ko xëccal ak donte naqari na ko lépp luy musibaam dana ko ko fegal ak donte metti na ci moom ak lu mu diis diis lu mu metti metti ci moom da koy feg da ko koy fegal ci façon boobu waaye yërmande dëgg li muy tekki mooy xëccal nit ki njariñ ak jañal ko lor waaye waxuñu rek nga tiim nit ki di wonk ci ni yërëm nga ko kon ki ki ëpp yërmande ci nit ñi ci yow mooy ki lay teg ab coono ngir jariñ la ngir indil la aw yiw ki lay teg ab coono ngir fegal la ab nattu ku ne xam na ni wajur wu am yërmaande ci doom dana ko jël yóbbu ko ci barab moo xam daara ju ñuy jàng la wala ci école la wala fu mën a doon wala béréb bu ñuy jàng métier la waaye fekk yërmaande ji mu am ci moom ba di ko tax di ko dugal foofu dafay sàmm awaniiram ci kanam boo defee daara ji mën naa netti lool waaye fekk bu xamee lam koy jariñ luñ ko mën a teg ci daara ji dina wax ci moom tooy naka noonu nit ki mën naa jël ab yar duma doomam waaye duma yooyu tekkiwul ñàkk yërmande waaye yërmande day tekki digganteem ak moom ngir rek bëgg mu jaar ci yoon woo xam ni ëllëg bi si biir dana mën a jàll boo ko gisee ak bu ko gisul ku ne xam na ni nit ki mën naa am doomam ju ndaw muy xëccu jëm ci aw xal mu téye ko xale bi di xatraay di ci jooy waaye xam gam xam la nekk lor di nekk tele moo tax muy xatraay yu jëm ci moom mu téye ko moom mi ko xam ñun la suñu borom jëf jëflante ak jaam ñi jamono bu nit di bëgg dara lu gënul ci moom mu xañ ko mbaa mu am dara lu mu lay teg mu gis gan ni ci yow te lu tee mu teg la ko waaye fekk ni lépp ne ci cadre yërmande lay dugg kon gone saa boo ko wàccee lu ko neex def nga jàpp ni danga ko yërëm jàppal ni sa yërmande jooju yërmande juy lor la te yërmande juy lor du yërmande moo tax sëñ Modou Guèye nga daan wax ni gone day boo ko jooylowut boo wutul daan la jooyloo yow man te jooyloo gi mooy la muy bëgg lépp bëgg ko jox la muy bañ lépp it lu ci bari danga ko ko war a teg ngir jariñ ko moo tax yàlla mi ëpp yërmande ci jaam bi yërëme ko sax nu mu yërëmewul boppam dana fab xeeti balaa ak xeeti nattu ak musiba di ko teg nit waaye lépp ci kaadaru yërmande day doon ak kaadaru xëccal ko ay njariñ ak jañal ko ay lor ak donte metti na ci jaam bi mën naa xañ nit ki ay bànneex waaye xañ googu kat du ak nay gum nay ci kawam moo tax mu di ko xañ waaye dafa xam lor ja nekk ca lool yi muy bëgg te gën ci moom moo tax mu teg ko natt boobu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam an xadis bu mu wax ni ñi amoon jàmm fii ci àdduna de ëllëg buñ gisee ña sunu borom daan teg ay nattu danañu ngi joowoon ñu faboon ay siso di xotti seen yaram yi ngir xéwal guñ gis ñee di ko am ci sababu sababu nattu yooyu ñu la tegal moo tax Sëriñ Tuubaa di wax ni ahlul bala laysa lahum mizaanu wa laysa yunsaru lahum diwaanu ñi yàlla tegoon ay nattu fii ci àdduna de kenn du leen indil ab téere naan leen li ngeen def ak li ngeen def kenn du leen indil ay balance di natt lu baax liñ defal ak liñ defut waaye dañu leen di sottil ay yiw ba ba ba ñëpp di leen ñee ñu bokkutoon ci ñoom waaye nag réer gu jàmm bi réer mooy waral bu ko suñu borom tegee ab nattu mu tuumaal yàlla jàpp ne dafa amul ci moom yërmande te xamul ni jëmmi loolu yi mu ko teg muy nuru ab nattu yërmande lay tekk ci yërmande lay tekk ci diggante ak borom moo tax am na benn xadis bu wax ni nit ki bu ko suñu borom tegee ab nattu nga ñëw di ko ñaanal ni yàlla yàlla na nga ko yërëm yàlla da lay wax ne la nan laa ko yërëme ci lii ma ko yërëme lii ma ko teg yërmande la ngay sàkku ma ma ma ma yërëm ko nu ma ko yërëm yërëme ci yërëm ci yërmande ji ma ko teg kayfa arhamuhu min shay'in bihi arhamuhu am na beneen xadis bu wax ni yonente bi sama sama wax ni yàlla day bëggee ab jaamam mën na koo xañ àdduna ak neexiiti àdduna ak bànneexi àdduna ni nit di aare ab malaatam ci yu bari ci xeeti lekk mu di ko tere ku ne xam na ni nit ki boo amee wayjur mbaa mbokk mu bëgg mbokk ma am lu mel ni tawati suukar jabet mën naa bëgg dara lool ci xolam mu xañ ko waaye fekk xañ googu tekkiwul ak mbañeel tekkiwul bu ndoxalaal ko waaye xañ nga la muy tekk mu yërmaande ju am ci moom ngir xam ne lii daf koy lor noonu nag nit ki di aare malaatam ci yu mel noonu yi moom la suñu borom di aare nit ki xañ ko àdduna te fekk xañ gi àdduna dafa xam ni gënul ci moom am benn xadis boo xam ne yonent bi dafa wax ni yonent mi ngi ci xadisul xus yi la bu yonent bi sans nett li suñu borom wax ni inna min annaasi man laa yuslihuhu illa al ilmu walaw ajhaltuhu la afsadahu dalik nit ñi di am na ñoo xam ne la leen di mën a defar mooy xam-xam bu ñu réeroon dañu yàqu wa minhum wa min annaasi man laa yuslihu illa al jahlu walaw aalamtuhu la afsadahu dalik am na ci nit ñoo xam ni ak réer képp moo leen mën a defar bu ma leen xamaloon dañu yàqu kon xikma suñu borom dafa sew bul jàpp mukk ni xam-xam la nit di jaar ngir defar waaye bul jàpp mukk yi ni ci am kawam la nit di jaar pour defar bul jàpp mukk yi ni ci ak ak ñàkk la nit di jaar pour defar lu ci ne suñu borom mooy xool nam yàlla mu tërale ko noonu daal di wax ne mu ne naa si man laa yuslihu illa al ghina walaw afqartuhu la afsadahu dalik am na ci nit ñoo xam ne am koom dong moo leen mën a defar su ma leen ñàkk loolu dañ yàqu wa min annaasi man laa yuslihu illa al faqru walaw aghnaytuhu la afsadahu dalik am na ci nit ñoo xam ni ak ñàkk képp moo leen mën a defar su ma leen woomal looloon su ma leen joxoon am koom dañuy yàqu loolu kon xikma suñu borom moo laaj lépp lu mu def rek jàppal ni noonu la moo tax Sëriñ Tuubaa daan wax ne suñu borom di dana dogal lu neexul waaye du dogal nag lu gënut du dogal lu neexul waaye du dogal lu gënut loolu ak dégg yàlla lay tekki ci moom kon suñu borom mën naa tere nit ki xañ ko àdduna te fekk ne matuk yërmande moo tax mu xañ ko ko fekk matuk yërmande moo tax mu xañ ko ko ba ci ndigal yi muy digal nit ki digalu ko ngir soxlaal ko dara tere yi mu la tere terewul la ko ngir ngir rek nay gum nay mbaa mu jëm laa xañ dara waaye lu mu la digal rek saw yiw la lu mu la tere rek ab nattu la aw aw ay la moo tax Sëriñ Tuubaa daan fab lépp lépp lépp li nit ki bëgg tënk ko ci ni mi ngi lii su mi ngi ci li suñu borom li suñu borom di digle lépp lu lu nit ki di bañ mu daan mu daan ko tënk ci ni mi ngi lii mi ngi fii ci li suñu borom di di di tere moo tax daan tomb ñetti tomb teg loxoom ci digg bi dañoo wax ne suñ Mbàkke Buso la ko waxoon teg loxoom ci tomb bi ci digg bi ni ko Mbàkke Buso yaa ngi nii daal di tomb ñetti tomb ci wetu di jorom ni ko lii la sama borom di digal a ngi nii daal di tomb ñetti tomb ci wetu càmmoñ ni ko lii la sama lii la sama borom di tere mi ngi nii dafa digal dafa tomb benn tomb ci digg bi tomb ab tomb ci kanam ni ko lépp lii la sama borom digal mi ngi nii ci sa kanam tomb ab tomb ci ginnaaw ni ko lii la sama borom tere lépp mi ngi nii ci sa ginnaaw tomb ñetti tomb ci wetu ndi jor ni ko lépp looy bëgg te di ko fexe di ko wut mi ngi nii ci wetu ndi jor tomb ñett tomb ci wetu càmmoñ ni ko lépp looy bañ te di ko ragal te di ko daw mi ngi nii ci wetu wetu càmmoñ daal ni ko saa boo ne ñokket jëm ci lii la saa borom di digal lépp la doon bëgg di ko fexe di ko wut dala naan jërumaa geesoo ndax noo bokk fu ñu jëm waaye lépp la doon bañ di ko ragal di ko daw dala naan jërumaa dawe ndax bokkunu fu ñu jëm waaye nag saa boo ne ñokket jëm ci lii la sama borom di tere lépp la doon bëgg di ko fexe di ko wut dala naan jërumaa geesoo kat ndax bokkunu fu ñu jëm lépp loo doon bañ te di ko ragal te di ko daw dal naan jërumaa dawekat ndax noo bokk fu ñu jëm kon lépp mi ngi ko tënk ci li suñu borom digle ci la li nga bëgg lépp nekk li muy tere li ngay ragal ak bañ lépp ci la nekk kon nit ki bu bu xamee loolu day góorgóorlu ni siw jaar ci ndigal yàlla yi tey moytu la muy tere bu boobaa lépp lu mu bëgg dana ko am la muy ragale dana ci mucc kon ndigal yi suñu borom digle digalu ko nit ki ngir bundu xataal ko ngir am lu mu soxla ci moom waaye njëriñu nit ki la lu mu la tere yi terewula ko ngir nay gum nay ci sa kaw waaye yërmaane ju am ci yow ak yenn jum la yenn jàmm te xam ni sa mucc ci loolu yi la nekk moo tax mu tere la ko ci bàyyi loolu la nekk moo tax mu tere la ko alxuraan indi na baatub arrahman mu wéet arrahman ju beru mat na juróom dikk na juróom fukki yoon ak juróom ñaar ci alxuraan baatub arrahman bu àndee ak arrahim ñu lëkkaloo dikk nañu lu toll ci juróom benn yoon ci alxuraan arrahim bu beroo moom képp dikk na lu ma téeméer yoon ak fukk ak ñeent ci alxuraan dafa mel ni arrahman 57 ñu multiplier ko par deux arrahim dikk na noonu ci alxuraan muy 114 mar muy baatub arrahman nag day tur woo xam ne suñu borom moo ko jagoo nanguwul nit di ko tuddoo ndax rahman li muy tekki mooy yërmaande ju daj kapp matale sëkk adduna ak alaxira rahman yërmaande la joo xam ni jullit bi ak yéefar bi ñoo ci yem yërmaande la joo xam ni ku baax ki ak ku bon ki ñoo ci yem yërmaande la joo xam ni nit ki ak mala yee ci yem dafa daj kapp mbindeef yàlla yi moo tax menn yàlla képp ku jagoo ba nanguwuñ kenn di tuddee boppam arrahman mbaa nit di wooye nit arrahman bu dee arrahim nag dagan nañu tudde ko nit ndax yàlla tudde na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran arrahim muy bil muminina raufur rahim kooku yonente bi la jublu waaye lu mu ci mën a doon ci tur yàlla yi nag yàlla mën na ko tudd nit tudd ko waaye nag différence dana mel ni yàlla ak yaali diggante raxiim yi doomu aadama ak raxiim yi suñu borom day mel ni yàlla ak yàlla jabbaari yàlla ak jabbaari nit ki day mel ni yàlla ak yàlla mutakabbir yàlla mutakabbir la nit ki mën naa nekk mutakabbir waaye diggante day mel ni yàlla ak yàlla moo tax yi am na tur yoo xam ni suñu borom dana ci yaatal nit ki ngir mu tuddoo waaye nag mu jaral turoo képp moo fay nekk waaye day sore loolu am tur yoo xam ni daf ko aaral boppam nanguwul ku ko tuddoo ba ku ko tuddoo nanguwu ko bi mu ko bañee rek daf koy bañ loo nit ki ba ku ko tudd sax mu mer ndax nit saa boo ko nee jabbaar day tekki day tekki da nga ko ne ab bànni nga da koy daal di naqari te yàlla loolu aw tagg la ci moom nit ki saa boo ko ne mutakabbir da koy naqari waaye fekk ni yàlla daf koo jub jubloo jaboo moom jëm boppam aaral ko boppam moo tax kuñ ko tuddee sax mu far naqari loolu xekk moom suñu borom la arrahman dañuy wax ni mooy yërmaande ju daj kapp mbindeef yëpp ci àdduna ak alaaxira mu yéefar bi ak jullit bi ku baaxee ku bon ki ñëpp ci am bu dee nag arrahim jullit bee ko jagoo yowmal xiyaam te moom la sunu borom sax ci alxuraan ne wa kaana bil muminina rahima ibnul xayim nett li na jële ci benn boroom xam bu ñuy wax as suhayli yi suhayli yi wax ni li tax sunu borom boole arrahman arrahim ñaari mel li tax boole leen mooy dafa bëgg a xamle ni arrahman yërmande ju gaaw la ju ju juy gaaw juy juy juy fekk nit ki fii ci àdduna balaa ëllëg bu dee rahim yërmande la ju yàlla denc ngir ëllëg ak mu ni bëgg cee wane it ni arrahman yërmande la ju daj kapp waaye arrahim yërmande la joo xam ne dafa am ñu ñu ko jagleen ñëpp moomuñ ko loolu la ibnu xayim nettali jëlee ko ci ku ñuy wax as-Suhayli waaye ibnu xayim dolli ci ne déedéet daani daani waaye nag boole gis suñu borom boole baatu arrahman ak arrahim kat am na meneen maxnaa moo xam ne moo gën a rafet ñaari maxnaa yooyu suxel yi wax daal di ndax arrahman bi ñu ko waxee day melo wi suñu borom meloo yërmaande jëm meloo moom jëm boppam moom lañ jublu arrahim mooy aju gi mu aju ci doomu aadama bi jëf gi mu koy jëf diggante mu nit ki di ko ci yëram kon rahman mooy melo wi nekk ci yàlla rahim mooy jëf ji suñu borom di jëf yërmaande diggante mu nit ki moom nee na noonu mooy li gën a mat kon bu njëkk bi aw melo la bu ñaareel bi jëf la suñ boroom ak yaatu yërmande mu wax ci alxuraan ni wa rahmati wasiat kulla shay'in mooy sama yërmande daj na lépp ci saxiix Buxaari ci xadiisu Abu Hurayra radiallahu anhu mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni yàlla bi mu bindee mbindee fii dafa bind am mbind def ko ci ab téere téye ko fa moom ñu teg ko ci kaw aras mu wax ca ni sama yërmande not na sama mer bi mu bindee mbindee fi rek la bind am bind teg ko téye ko fa moom ci aras wax ni sama yërmande moo ëpp doole sama mer nga xam ni kon jamono bu ne nit ki bu jëlee loolu li ñu ciy dégg mooy nit ki bu jëlee mer muy xuloo ak xeex bëgg cee not nit ñi mu jëloon yërmande not leen ci moo gën a jàpp yërmande moo gën moo ëpp doole mer xeex ak xuloo yërëmante moo ko ëpp doole la nga ci mën a réaliser mën na ko réaliser de suñ borom dafa wax ca ci xadisul xudsi bu leer ni sama yërmande moo not sama mer naka noonu ci saxi muslim ñu jël ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni yàlla bi muy bind yërmande daf ko bind muy téeméeri yërmande yërmande bu ci ne nag ci yërmande yooyu fees na diggante asmaan suuf benn boo teg sa diggante asamaan diggante asamaan suuf loolu seenante asamaan si da koy daj kapp téeméer yërmaande la bind te yërmaande bu ci ne fees na diggante asamaan ak suuf ci saxi buxaar yi jële ci abu hurayra radiallahu anhu mu wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne yàlla dafa def yërmaane muy téeméeri xaaj mu téye juróom-ñeent fukki xaaj yépp ak juróom-ñeent moom moo ko téyel boppam benn xaaj bi la wàccee fii ci àdduna mbi mbindeef yi di ci yërëmante ba àgg ci aw fas sax bu bu ko wóoree ne doom jaa ngi ci ron tànk bi day yëkkati tànk bi ngir bañ koo gaañ ngir yërëm ko yërmaande ji dox diggante nit ak nit dox diggante nit ñi ak mala yi dox diggante mala yi ci seen biir ci benn yërmaande bu suñu borom wàccee ci lañ ko séddoo waaye juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñeent yépp moo ko teel boppam kon jamono bu ne nit ki war nañ rafet jot diggante ak boroomam ci di yaakaar yërmaande ñu jëlee ci Omar ibn Khattab radiyallahu anhu mu wax ni dafa am ay jamono ñu indi ay prisonniers jàpp prisonniers de guerre ñu guerre ci xare xare ba xare bi jeex ñu jàpp mbooloo indi ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci biir mbooloo moom ñu indi woon ñu gis benn jigéen bi wër wër wër ci biir mbooloo mi ba gis benn xale daal koy jël taf ko ci dënd bi daal koy tàmbalee nàmpal lépp yonente bi mi ngi jàkkaarloo moom yonente bi ne waaw jàpp ngeen jigéen ji dana fab doom ji di ko tàbbal safara ñun ko du ko def te di ko tay di fekk mi ngi ko ci mën a bañ a tàbb du ko def mun nag suñu borom moo ëpp yërmande ci jaam ñi ci jigéen ji ci doom ji yërmande ju jigéen ji am ci doom ji suñu borom yërmande ju ëpp jooju am na ko ci ab jaam kon lépp suñu borom yërmande loolu kon bu leeree ana jaam bi ban cër la am ci turu yàlla woowu yi ndax damaa waxoon ni li yonte bi wax ni yàlla dafa am juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent ku ko takk na tàbbi aljana takk gi am na ci ñoo xam ne dañoo wax ne takk gi mooy nga jël ko di ko sikkar di ci ñaan si soxla ñenn ñi ne déedéet mooy nga jël ko pour jikkowoo jëmmi turu ci boppam kon rahma turu yàlla maanaam melow yàlla la waaye dañuy bëgg nit ki jël rahma di rahmaan di ñaan yàlla di ko wax yaa rahmaan mu bàyyee xel ni yërmaande jooju mu koy woo nit ñi soxla nañ ko mala yi soxla nañ ko mu jël jikko jooju jikkoo ko pour mu doon ak mat gu mot li ko ci matu yàlla jikkoo jikko ji di ko yërëm képp képp kum kum doon rek mu yërëm ko kon cëru jaam bi ci arrahman mooy mu yërëm mbooleem moykat yàlla yi mu di leen yërëm ci di leen waar bëgg ñu dëpp dellusiwaat ngir merum yàlla bañ leen dal naka noonu mooy yàlla gu mu gis ci kaw suuf yëg ni moom moo ko def ngir yërëm gu mu yërëm ña ko def ngir jàpp ni meram suñu borom dana dal seen kaw mu am ci ñoom yërmaane boo fee noonu lay xoole mi def jaam yëpp ba ci kay mooy yàlla du ko bañ waaye daf ko yërëm la muy doxale diggante moom ci xeetu waaraate mbaa defare mbaa jàngale day doon loo xamante ne daf koy teg ci kaw yërmaane bañ ko teg ci kaw doole ak force ak xët-xët ndax loolu mën na koo xañ li nga koy jox te fekk li nga koy jox lu baax la waaye boo am yërmaande ci nit ki sax boo koy jox dara da nga koy jox joxit boo xam ne dana tax mu bëgg ko te mooy nga def ko ci kaw ak dal ak uk tekk ak uk tey waaye mbindeef yépp ci kaw suuf da nga leen di yërëm bëgg ñu jaar ci ndigal yàlla yi di moytu ñuy def tere yàlla yi ngir yërmaande yi nga am ñoom xam la lañ ciy fekk boo defee na ngay dox ci di leen ko tere naka noonu cërub jaam bi ci arrahim mooy fu mu fekk ak faqiir muy sàkk pexe ci ñàkk googu dañ muy xool ñi mu dëkkal ay dëkkandoo di xool ñi mu bokkal réew di xool way néew ji doole yi jamono bu ne muy sàkk pexe ci ñoom ngir bëgg lii ñuy jànkoonteel dañ kon loolu mooy cirub jaam bi ci arrahim boo ko mënee di ko di leen fanqal ñàkk googu yi ak coono yooyu ci sa alali bopp ak sa daraja yi bopp bu fekkee amoo ko mbaa mënoo ko it nga bokk ci ña leen di tinu ca ña ko am mbaa ñu man ko ngir ñu mën a am loolu mooy cër bi nit ki war a cëroo ci arrahim digganteem ak jaam yi kon jeexiti yërmaande yàlla ci jaam yi suñu borom yërmaande ji nan lay feeñe la ca jëkk mooy gépp xéewal boo gis ci kaw suuf jàppal ni ci jeexiit yërmande yàlla bokk xéewal gi gën a rëy ci xéewal yi nag mooy xéewalu yónnee gi yàlla yónni yonante yi wàcce ci ñoom ay téere ngir gindi jaam ñi bañ mën a jaar ci yoon woo xam ne danañ ci amee tax àdduna ak àlaxira kon xéwal googu mooy gën a rëy gi yàlla xéwale jaam ñi tax xéwal googu kon ci yërmaande yàlla bokk ci jeexit yërmaande yàlla bokk moo tax mu ne wa nazalna alayka alkitaaba tibyaanan li kulli shay'in wa hudan wa rahma wa bushra lil muslimin wàccee nañ ci yow téere bi muy leeral lépp di ak njub di yërmaande di mbégte ci jullit yi suñ borom dellu di melal alquran wax ni hudan wa rahma li qawmin yuminuun ak njub la waaye nag yërmaande la ci nit ñu am ak ngëm delluwaat ni wa rahmatun lillazina amanu minkum yërmaande la ci ñi gëm ci yéen waaw ndax ginnaaw mooy sababu ñu gëm rek kon jëmmi alquran ci boppam rek yërmaande la naka noonu wërsëg wu yàlla wërsëgale nit ba tey ci yërmaande yàlla bokk waaye damaa wax ni gépp xéewal boo gis ci kaw suuf ci jeexiit yërmaande yàlla la xéewal gi gën a rëy ci xéewal yi mooy yónni gi mu yónni yonante yi ak wàccee gi mu wàccee ci ñoom téere yi ngir ñu mën a gindiku tegu ci aw yoon ba tax ñu mën a mucc ci li ñuy ragal tax ñu mën a am li ñuy xeeme waaye ba tey wërsëg wu suñu borom defal nit yërmaande la ci yërmaande yàlla bokk xéewal googu yërma ci yërmaande yàlla bokk moo tax Ikrima ci bi suñu borom waxee ibtigaa rahmatin min rabbika tarjuha rahma boobu risque la ko firee mu ne mooy wërsëg ab taw ba tey ci jeexit yërmaande yàlla bokk ab taw moo tax suñu borom wax ci alxuraan wa huwa alladi yursilu riyaaha nushran bayna yaday rahmatihi mooy ki yabal ngelaw li mu tasaaroo ci kanamu yërmaandeem waaye fekk yërmaande jooju ab taw la ci jublu kon taw ba tey ci jeexit yërmaande yàlla bokk àjjana yërmande yàlla la ju suñu borom bind def ko mu doon béréb bu mu yërëme ay jaam moo tax mu ne waa amma alladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha xaalidun ñi nga xamante ni seen kanam dafa weex de danañu sax ci yërmande yàlla moo tax yërmande jamono bu ne lim laaj mooy def mooy def nit ki daal boo ko fekkee mu tawat nga mën ci tawat ji dara la nga ca mën nga def ko mooy yërmaande ci moom nit ki ak faqiir la amut lu mu reere nga mën ca dara lay yërmaande si danga moom mooy la nga ca mën nga def ko waaye waxuñ nga tim ko di wonk tim di wonk moom kenn képp lañ ko may muy kii ci mënul dara lii teg na ci kawam mënoo ci dara boobu baa tim gi di wonk mën naa doon yërmaande waaye yërmaande ji manqué lay tekk kon yërmaande jooju mooy yërmaande ji manqué Sëriñ Tuubaa nag yërmaandeem ci jàmm leer na ci xaside gi mu tënke arrahman arrahim ndax wax na ci ni rahmaanu hab li jamihi xalqi rahmata man yugni ani charri man qur'anahu qaraa dafa jël baatub arrahman bi nga xamante ni day yërmaande ju daj kapp woo ci yàlla ni ko sa mbindeef yépp na nga leen yërëm kon moom amul xejj ak seen ci mbindeef yi waaye mbindeef yépp la bëggal yërmaande yàlla comme ni ko suñu borom bëggale mbindeefam yépp del ne xot ummatal mustafa an kulli mafsadatin xeetu yante bi na nga leen peeg ba lépp luy ak yàqu ñu mucc ci waltar xamil xalxa yaa man jaddahum badaa te it na nga yërëm mbindeef yi kon yërëm mbindeef yi lay wax waaye waxul sax yërëm sama njaboot waxul yërëm samay taalib waxul yërëm samay mbokk waaye yërëmal mbindeef kon foofu la xolam toll ci mbindeef delluwaat ni yaa malikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jamiha wara ñetti bayit yëpp bayit bii da ci gën a siiw waaye ñetti bayit yëpp lu ci ne mbindeef yëpp la ci ñaan yërmaan irham jamiha wara yaa haadiyan radaa kon la ca des mooy lan mooy sabab yërmaande yàlla ci doomu aadama bi lan moo tax lan moo mën a tax su borom may la yërmaande loolu yi dafa ma taxam di ko jéem sa kem kàttan la ci jëkk ci luy sabab yërmaande yàlla mooy nangoo topp yàlla ak yonante bi yàlla digle na julli leen julli yonante bi digle na nangam ci sunaam dee ko def toppal yàlla topp yonante bi su borom dafa wax ne wa atiu llaha wa rasula laallakum turhamun na ngeen topp yàlla ak yonante bi ndax lee yërëmeef leen waaye bokk na ci lii sabab yërmande yàlla it muy jégglu bari looy jégglu yàlla bari looy istixfaar bokk na ci lii sabab yërmande yàlla ndax su ma wax na ci alxuraan ni lawla tastaxfiruuna allaha laallakum turxamuuna te te ngeen woon a jégglu yàlla ndax leen ñu yërëm leen naka noonu rafetal sa digganteeg nit ñi loo mën ci lu rafet sa digganteeg nit ñi nga di ko def bokk na ci li la mën a sababal yërmaande yàlla yow dama adama bi ndax yàlla moo wax ci alxuraan ni inna rahmatallahi qaribun min al muhsinin yërmaande yàlla di lu jege way rafetal yi la ñu ci nekk xisab sayidna Muusa alayhi salaam ci bi mu jógee misra jëm madiana bi mu ñëwee ba jub si dëkk bi dafa fekk mbooloo muy root ci ab teen mu fekk ñëpp di wëgg mu gis ñaari jigéen ñu taxaw ne de di fekk seenu jur ñoom pour mu bañ a agsi mun leen maa xat bu kuma lan mooy seen mbir lu tax mënu leen dem wëgg ko ñëpp ñu ni ko laa nasqi hatta yusdira ri'u ñun kat bala ñu wëgg ñi dañuy wëgg ba ba génn ba ba génn ba noppi wa abuna cheikhun kabirun mu am ci ñoom yërmaande moom Moussa daal di ñëw wëggal leen bi mu leen wëggalee ba ñu màndal mu daal di tëdd da ko def képp ngir yàlla ak yërëm leen de waaye ba mu tëddee ñaan suñu borom ni rabbi lima anzal inni lima anzalta ilayya min xayrin faqiru aaja woo naa di loo ma dimbalee ci wërsëg ndax booba xiif na sonn waaye li mu defoon ngir yàlla ba mu demee ñooñee bañ demee ci seen baay seen baay dañ leen ku leen wëggal ba tax ngeen gaawee nii ñu ko dafa am ku am kàttan doon ko am amaana ku baax moo nu wëggal ba tax mu ñu gaawe nii mun leen dem leen woo ko ma ma fay ko ma fay ko lim leen doon wëggal mu ni nag ba mu waxee loolu rek fa jaatu ihdaahuma tamshi ala istihyaa am ci kenn ci ñoom ku del siwaat ni ko inna abi yad'uuka li yajziyaka ajra ma saqayta lana sama bàyyi moo lay woo ngir fay la payu lii nga nu wëggal kon léegi rafetal sa diggante ak jullit yi bokk na ci lii soob yërmande yàlla ndax bi mu rafetalee diggante mag ñooñu te yàlla képp tax mu def ko ak yërmande ca saase ba mu ñaanee yàlla ne ko yàlla aajowoo naa loo ma dimbalee ca saase la ndaw ni ñëw woo ko mu doxe ca ba foofee sax far amee soxna ba mu demee ca dëkk boobee kon yërëm nit ñi ak dimbali leen bokk na ci lii sabab yërmande yàlla ci nit ki yàlla bi muy tàgg yonente bi it tàgg na ko ci jikko yi jikko yërmaane jooju muy wakaan muy bil muminina rauf rahim kon loolu tàgg la wu yàlla tàgg yonente bi salallahu alayhi wa sallam muy jikko yi yërmaane jooju waaye yonente bi salallahu alayhi wa sallam tàgg na abou bakar ci yërmaane jooju ndax wax na ni arhamu ummati bi ummati abou bakar ki gën a yërëm sama xeet wi ci sama sama xeet wi de ki ci yër gën a ëpp yërmaane mooy abou bakar Abubakar mooy ki gën a yërëm yërëmi ci sama xeet ci sama xeet bi ki leen ëpp yër ki ci ëpp yërmaane mooy Abubakar ni Siddiq waxit ni innama yarhamullahu min ibadihi arrahama yàlla di jaamam yay yërëme lay yërëm loolu yonent bi san moo ko wax ne yàlla ña mu yërëm ci ay jaamam mooy way yërëme ya waxaat it ni ki texee di mooy ki nga xam ne suñu borom dafa nocc yërmaande ci xolam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dala wax ni ku dul yërëme defu ko yërëm hadis boobu muttafaqun alayhi ñu jëli soxna Aïcha radiyallahu anha mu wax ni dafa am benn kaw-kaw bu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal ni wax yéen da ngeen di fóon seeni gone ñu ni ko yonente bi ni ko waaw dañuy fóon suñu gone mu ne ñun duñuy fóon duñuy fóon duñu fóon suñuy gone maanaam jël gone di ko tap tap la ko fóon ñun duñ ko def yonente bi ni ko lu ma leen mënal bu yàlla nocc yërmande ci seeni xol lu ma ci mën mu mel ni kon ba ci jël xale di ko fóon ni yërmaande la bokk ka wax ni ñun duñ ko def mu ne ko loolu nocc gu weex yàlla nocc yërmaande ci seen xol ndax mën naa ci dara waaye jàng alquran di ko seetantal ba tey yërmaande la bokk na ci lii soob yërmaande suñu borom dafa ci alquran ni wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin jëmmi alquran jàng ko ak seetantal ko bokk na ci lii soob yërmaande yàlla wax na ni bokk na ci li soob yërmande julli ñeenti rakka jëkk takkusaan bala ngaa julli takkusaan bi nga julli ñeenti rakka loolu bokk na ci li soob yërmande yàlla ndax suñu borom yàlla yonent bi ci boppam moo ñaan ne yàlla yàlla na nga yërëm nit koo xam ne julli na ñeenti rakka jëkk takkusaan hadis boobu ahmad ak tirmisi ñoo ko nettali yonent bi wax ni rahimallahu imraan salla arbaa rakaatin qabla al asri kon saxal loolu yi bokk na ci li sabab yërmande yàlla ci nit ki naka noonu julli ba noppi nangoo sax ci jàkka ji dir bu yàgg di ñaan ak a jéglu bokk na ci lii sabab yërmande yàlla ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni laa yazaalu ahadukum fi salaatin maa daama yantadiruha nit di du dañ di jull ci ak julli li fekk mi ngi xaar julli buñ julleegut nga xaar julli gi lu yàgg diir boobu yaa ngi ci biiru julli daal di waaye nag laa tasallul malaikatu tusalli ala ahadikum maa daama fil masjid waaye malaayka yi duñ dañ di ñaanal kenn ci yéen jullig malaayka waxoon naa ne mooy ñaan di ñaanal kenn ci yéen li fekk yaa ngi sax ci fa nga doon jullee ci jàkk ji di wax ni allahumma agfir lahu allahumma arhamhu ñaan googu malaayka yi li fekk nit ki julli na toog bi rek ba mu jullee woon moo xam day sabaal mbaa day sikkar mbaa day xalaat yàlla malaayka yaa ngi koy ñaanal di wax ni yàlla yal na nga ko jéggal yàlla yal na nga ko yërëm bokk na ci liy saw yërmande seeti ku wéradi mbokk mu tawat nga seeti ko bokk na ci liy saw yërmande yàlla ndax yonent bi moo wax ni képp ku seeti aji tawat day dañu di xuus ci yërmande ba ba muy àgg fa moom bu àggee ba toog nag bu boobaa nuur na ci biir yërmande yàlla xadis boobu Malik ak imam Ahmad ñoo ko nettali bokk na ci liy saw yërmande yàlla ni bari looy ñaan yàlla yërmandeem yàlla na suñu borom defal yërmandeem ju kawe adduna ak alaaxira defal nu tawfiix defal nu ak dégg ak ku topp ak jëriñu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu